Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rafetlu and ak radio Joko FM uh, fukki uh, waktu ak ben jot uh, ba tegal fukki simile ak jurom ñaar uh, yéene yek si and ak yeen ci li nga xamne modi uh, sen uh, émission bi ñu jakarlo uh, politique jakarlo politique uh, tay am gan mu nga xamne mom modi uh, danaka abdul aziz Aziz Sek Abdul Aziz Sek nak mom mooy jité euh, mouvement patriotique sénégalaise pour l'émergence du MPSE waaw loolu nag day tolloo ak li nga xam ne daanaka moo di euh, nammateefu euh, euh, kii nga xam ne moo di Macky Sall nga xam ne mon jiite réew mi ba noppi nekk ci bopp euh, kuréelu politique bi nga xam ne moo di APR nammatee fa mooy émergence su Sénégal amaana euh, dàkkantal bi euh, du lu ñu tànn par hasard ama dina ci dellu siwaat ci biir émission bi loolee nga xam ne nag moo émission bi Assane Ndiour moo ñu féetal ci xarala gi Moussa Pouy moo nekk ci wax gi waxukaay bi ñu leen di wax dal leen ak jàmm fas yéene jublu nag ci suñu gan mu di Abdoul Aziz sek ñu ngi laa nuyu. ñu la ñu ngi lay fay. voilà donc euh, tey kontaan donc euh, bi nga nangoo tey doon suñu suñu gan ci euh, jàkkaarloo politique xam naa ne sax doo fi gan de. <laughs> waaw tey suñu suñu mënee tënk wala fàttali. ci ci gàttal rek kan mooy Abdou Aziz Seck ci li nga xam ne moom moo di. ci wàllum njàng jaar jaaram ci wàllum xëy ak yu ni mel noo koy tënkee. waaw. <laughs> de ah wax sa <laughs> waaw mais bon dinañ jéem a jéem bu ndaw rek. Mhm. en fait euh, Abdou Aziz euh, Seck euh, fii laa dëkk Kër il Sarr. fa laa juddoo fa laa yaroo au lycée <coughs> Abdoulaye Sadji fi laa aussi petit lycée après ñëw grand lycée donc fi laa l'Université euh, université Dakar jógee en 1993, de, euh, en en France à Grenoble euh, à l'IEP de de Grenoble jógee fa au Sénégal en 95, euh, intégré la commune de la recette perception municipale de Dakar je suis fa en 2001, euh, en Israël pour une formation. Après l'Israël, je suis parti en, Italie où j'ai résidé presque pendant une, dizaine, voire 13 euh, ans, où j'ai été, j'ai euh, président de l'association sénégalaise de Poudibonsi dans la région de Sienne. Et j'ai mené aussi des activités politiques là-bas. À un moment donné, j'étais euh, responsable de, Réumi, où j'étais le porte-parole en 2012. Après que le président Macky Sall est venu, on a travaillé, quand il est arrivé au deuxième tour, euh, on a travaillé dans Berdon Bokayakar jusqu'à ce que le président soit élu. Et, après, en 2013, je suis venu au, Sénégal. Et depuis lors, euh, magnifique. Donc, j'ai travaillé, continué à travailler, militer. Mm-hmm avec euh, le ministre Marguerite, euh, avec qui j'ai travaillé depuis en son chef de cabinet. Et jusqu'à maintenant, je suis toujours au, ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, euh, comme chargé d'études, où il vient même de, faire son passage, sa, passation de service il y a deux jours avec Amit Absolument. Donc, sur le plan politique, je suis conseiller municipal à la commune de Bambilor. Euh, pour, la, pour un deuxième mandat parce qu'en 95 j'étais conseiller municipal aussi euh, dans la communauté rurale de Kama à l'époque. Et voilà, maintenant je suis responsable dans le département de Rufisque pour le compte de la paire et président du mouvement patriote sénégalais pour l'émergence MPSE. Et voilà, et c'est ça. il y a une petite Rufisque yi. waouh cadre qui euh, ngi euh, je je je maa ngi profito sax di saluer du nouveau Assane Mansour Mbang uh-huh. bi nga xam ne le coordonnateur des cadres du nouveau ñoom Lamine Niang ñoom ñoom balle, Balla tous les grands en tout cas responsables yi nga on a eu à travailler euh, ci structure cadre yi ñoom Ousseynou Diallo de de de Kounoun Galap que je salue au passage voilà donc euh, Absolument. Donc, euh, euh, voilà, donc euh, maintenant, à chaque fois que de besoin, si nous d'autres informations, on vient participer et puis voilà quoi. Alors justement, peut-être si introduction bi, c'est vrai, hein, Hassan, CV il dafa xawoon un grand na moi man, préféré <laughs> parce que dafa voilà c'était vraiment très très costaud Mon préféré donc mon mu Attends, ko. ah l'union récemment mu à la présidentielle donc. Euh, de 2019 avec la, la victoire euh, de Benno Bokeyakar à sa tête euh, le président Macky Sall la opposition bi jaare na da jël élection yi da ko njaaj da gagné ni gagné vous n'êtes pas reconnaissant ban avis ci victoire est-ce que c'est une victoire méritée ou une victoire tronquée voilà en fait moi je crois que l'ordinaire savoir savoir pour wax ci parce que c'est pas la première fois hein que opposition bi ñuy wax affaire élection il m'est arrivé dans une télé de la place je crois où j'ai été invité à une émission Célébéon et ce jour-là je disais à mon co-débatteur euh, c'est-à-dire ce que vous faites là euh, def pourquoi parce que mon alors quand le président de la République di leen convier à des dialogues mhm. du ngeen ñew lu wax ngeen ne ñew non duñu dem président ni président na le ba paré toog fi di tok rek di critiquer c'était très facile occuper les médias c'était très facile nek ci télé yi nek ci radio, yi di wax mais la politique ne se gagne pas à travers les médias elle se gagne où elle se gagne où la politique aussi ça se gagne sur le terrain c'est-à-dire il y a un travail de terrain qu'il faut qu'il faut assurer euh, opposition non la plupart de ces gens là si si si si si bi rek ci yi des fois ñu organiser ay genre marche yoy mais sénégalais yi suivre ñu len ci et puis il faut être sérieux et je l'ai toujours dit le président Macky Sall en 2012 quand il a pris le pouvoir mais gis nañ ne cheminement bi mu tegoon te liko gëna firndel a plan bi nga xam la tek le plan Sénégal émergent dit le référentiel unique de toutes les politiques de développement du Sénégal moi je l'ai toujours dit que j'étais tellement confiant que quand les gens m'ont parlé de de deuxième tour ou ça moi je dis que moi j'ai pas de en tout cas moi je ne travaille pas sur un chemin de deuxième tour parce que le président a suffisamment fait a suffisamment travaillé et que nous dans le département de Rufisque en tout cas que je maîtrise le plus mm-hmm j'ai vu que les gens étaient là en train de faire un travail de terrain extraordinaire. Mm-hmm. Et j'en profite pour vraiment les rendre hommage, les féliciter de nouveau et par rapport à cette belle victoire que nous avons acquise au soir du 19 février 2019. Alors, nous avons également Fofu, euh, victoire, bien que nous avons un part voilà, plus de 55%. Alors, euh, est-ce que tu des sujets puisque nee nga opposition bi defuñu won investissement puisque nee nga ils se sont pas impliqués politiquement sur le plan local ak yu ni mel également donc un travail de terrain yéen yéen def un travail de terrain résultat véritablement donc euh, euh, fruit de votre résultat ban impact le le le, sur la am ban njeexital la wara am ci d'autant plus que dafa yeesalaat euh, euh limu gëm Macky Sall ba nopi jox ko plus de 55%. c'est-à-dire presque plébiscite la ko defal fi département bi est-ce que tu dis, ni on peut s'attendre à ce que Rufisque gis du gouvernement d'autant plus que mon nañu euh, donc euh, plus de 3 4 ministres je pense bien à l'exception peut-être donc de euh, du ministre Sambassi, il ne reste que M. Omar Gueye. waaw je crois que euh, quand même faut que le département yi nga xam nous supporter le président Macky Sall. Hmm. dañ ko yàgg a jàppale mu gagné y na y élection yi aussi li li li kaw li firndel nga ñaay li ba nga en tout cas au niveau de la région de Dakar le département de Rufisque est sorti numéro un euh, par rapport aux résultats je veux dire donc da fay firndé ne liggéey bi nga xamné mom en tout cas tous les responsables à commencer par le coordonnateur Mhm. le coordonnateur du, de la coalition Benno Bokayakar et de la paix dans le département, en l'occurrence le ministre des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, euh, Omar Gueye, maire de Sangalkam. Mhm. Et il y avait aussi d'autres personnalités dans le département qui ont eu aussi à abattre un travail extraordinaire. je peux citer le cas du, ministre euh, Ismaël Majorfal, mhm. qui, a, qui a fait un travail extraordinaire au niveau de la ville de Rufisque. Euh, voilà, il y a, le doyen Omer avec euh, tous ses, tout son groupe qui ont eu aussi à abattre un travail de Tétan et les autres responsables, Salam Gay, les Souleyman et président du conseil départemental. Nous avons vu les, les jeunes avec abdulaziz Aziz Nous avons vu vraiment l'ensemble des responsables, en tout cas de Rufisque, euh, se sont mobilisés corps et âme pour, pour donner cette victoire au président et tout le département. Si vous allez à Sangalkam, si vous allez à Bambilor, si vous allez à, à à Djahai, à Sebikotan, euh, à Djamnyadjo, à Sendou, Barni et les trois communes de, de Rufisque et la ville, nous avons tout raflé. Nous n'avons perdu rien du tout. Ça montre que le président Macky Sall, en tout cas, a fait de Rufisque tout ce qu'il devait faire. Peut-être pas tout, parce qu'on va continuer encore à faire pour risque Et puis, nous avons aussi le pôle urbain de Djamnyadjo. Il faut que tout ça aussi, que les gens comprennent que le pôle urbain de Djamnyadjo, voilà, pôle urbain de Djamnyadjo, dafa bokk, dafa bokk ci, ci li nga xam ne lu tax Tëngéej war a si président de la République ci la bokk. kon yaakaar a ne liggéey bi tax ñu plébiscité waat Macky Sall dafa na né ñëpp teg nañ ci seen bët travail bu yàgg la les de de nous pour consolider d'autant plus que le président aussi a réussi un coup de maître euh, avant la présidentielle en faisant de sorte que les gens qui étaient en bisbis se sont retrouvés pour finalement faire une seule et unique équipe pour faire gagner le président. Et moi, je crois que ça, nous l'avons réussi. Donc, euh, on ne peut que s'en réjouir. Nous, daal lu dul mbég ci am ci kontaante te xamoon nañ ko daal loolu yaakaaroon ko te euh, voilà moom mais mais Abdou Aziz loolu ñi ko ñi ko yaakaarul mooy ñi nga xam C'est un regard <laughs> regard croisé mhm. rawatina. Euh, ñi doon jàmbat ci terre bi population yi nga xam ne ñoom la ñu levé euh, sur la bande bi ko animé boo demee jam euh, mbirum suuf dafa taxaw gars yi dañu amoon ay ay terre ñoo xam ne également fa lañ nekkoon di bay ak yu ni mel ñu fëkk suuf soosu def por diggante Bargny ba Sendou dagg ko lor population yi nga xam ne ñoo doon ñoo fa doon bay kànji ñi nga xam ne ñoo ko moomoon également depuis seen maam yor ko di ci suturlu mm-hmm. loolu lépp ñu dindi ko fa ba léegi nii indemniser wu ñu leen nga ñëw fii par exemple Rufisque Euh, la la la la la vieille cité moi en tant que tel Rufisque en tant également euh, chef-lieu du département presque dépourvu donc d'infrastructures yoo elles sont modernes ba pare lii port bi yooyu yep amul tey jii nii ngeen di voilà Macky Sall lim fi def lim fi def lim fi def lan la. oui en fait xam nga bu ngeen ne dañ fi dafa ñew def yi defuñu lii defuñu li mais ma je que am rew aussi c'est-à-dire euh, c'est-à-dire le président Macky Sall bokk ak responsable wala président je peux dire. parce que moi, dafa am une vision. Hmm. c'est-à-dire vision bi am permettre quand il parlait du PSE à l'heure 2035 hmm. président Macky il a fait son dernier mandat donc en 2024, il termine ses deux mandats donc mais il avait projeté pour 2035. c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait une vision et je vais vous dire gis nga am rew dire, waré tabax surtout ñun suñu dëkk yi des pays en euh, sous-développés en voie de développement. Mm. il faut ñu am ay ay vision yu l'air à travers des plans yu am solo te plan est moy li nga xamné tay mom le président Macky Sall indi à travers le plan Sénégal émergent PSE à travers ces trois axes nga xamné pratiquement def nañ ci liggéey boo xam ne bii ñëpp teg nañ ci seen bët kon euh, au niveau de xam nga nit ñi man je des fois damay wax ne nit ñi des fois da euh, am na nos opposants la ñenn ñi c'est des même des ennemis du progrès parce que lépp lu nga xam ne dafa war a parce que ñun aussi dañu war a avancer dañu war a évoluer comme ce qui se passe en Europe xam nga soo demee foofu parce que le transport dafa am solo ci dëkk ci dëkk nit ñi affaire bi dafa war a gaaw fluide loolu moy tax réew mi dem économie bi gaaw économie pour justifier terre bi mais mais mais absolument terre bi ak yenen ak yenen d'autres projets yo xamné ne ak Ila Touba

Mais bon, au niveau de Rufisque, au niveau du département en tout cas, et moi je vous dis que d'où ñi nga xamné dañ leen jëlé fi indemniser wuñu leen. Faut aller demander, il y a beaucoup de changes yo xamné yi jàppale nañ leen ba ñu seen indemnisation am na ñu lu bari jot nañ ko. am ñu di kaas ba léegi di jotuñu seen bu amé ñu jotul c'est des problèmes de de forcément de procédure mais ñoom ñëpp dinañ jot li nga xam ne lañ jot parce que loolu mooy yoon loolu mooy dëgg. maintenant euh, ci wàllu parce que tamit dañuy comprendre ne boo xoolee am na effectivement ñoo xam ne ñi tey ñàkk nañ seen ay suuf dans dans la zone parce que loolu li ko waral yëpp mooy parce que pôle bi moo ñëw englobé suuf yooyu yëpp ko mais li ñu war a xool mooy intérêt bi pôle bi di régénérer di ko waat muy dellusiwaat ci askan bi lolu dafa ni nek un projet bu am doole kon képp ku nga xam yalla dafa def say sa suuf peut-être duggu ci ci anam bobu nga kay nga kay comprendre xam euh bu bu développement bi ñëwee di nga ci gëna gis sa bopp en fait moi je crois que né lolu la motax pratiquement euh, amna na ay contestation yo xam ne déggu ko peut-être à la limite amna des trucs sporadiques là yo xam mais finalement les gens comprendre nañ avec le président Sall tous ses engagements il va les respecter mm donc euh, ci côté bobu amuñu luñ ci tiit wala luñ ci ragal man je crois que euh, côté bobu loolu laa ci mën wax quoi lo xamné li lu leer la. alors légui ñu ñëw euh, ci aspect gouvernemental. bon mhm. c'est vrai que yaa ngi défendre hein si li nga xamné ne <laughs> modi cette émergence là bi ñuy wax presque émergence bo xamné man si sama si si li ñuy jangat ah hein, donc benen côté bi à part peut-être donc ay ay slogan ak ay donc ay ambition lu ci ëpp voilà donc euh, c'est un peu dafa dess dal si si lu ñu wax mais buñu euh, jappé euh, li nga xamné ne aju aussi dafa doxalin bi ci ci yoon bu bess bi ñu jëm Macky Sall dafa jël ñu ci bëri ci li nga xamné mom la mom la yoron comme gouvernement avant élection yi bi mu falwaatee lu ci bëri dañ ko dindi notamment le poste donc de premier ministre nga xamné ne ba légui ma ngay des ci assemblée nationale mais nan nga gissé gouvernement bu yees boobu ñu réduire ko euh, fexé ba euh, tënkaat centraliser ko euh, ba également xob bi ñu bëri poste de ministre d'État ak mel c'est vrai que xawna xawna positif mais ban jangane nga siy def d'autant plus que poste premier ministre dil nañ ko té ban njëriñ lay amal Sénégal waaw xam nga moy li ma lay wax rek c'est-à-dire quand tu as un président de la République bu am vision xamné le monde va vite c'est-à-dire aujourd'hui il faut que nous comprendre d'abord que nous les pays sous-développés là dañu dañu wara gaaw dañu wara a gaaw si si on ñuy dañu gaaw un peu partout. Ah, moy fast track bi quoi. fast track voilà très bien c'est le mot. alors euh, il s'est trouvé que le président de la république bu mu démé ba jël option supprimer day premier ministre wax nako, c'est parce que dafa bëgg non seulement en personne en tant que chef de l'État et puis buñu faté né c'est lui qui détient euh, le suffrage des sénégalais toutes les responsables souvent gars président fort mais au Sénégal la constitution président bi prérogative prérogative gouvernance régime présidentiel donc le président le président soit que le président soit fort mais hmm. c'est bien que le président soit fort. Mais il ne doit pas être plus fort que les institutions. Non, non, non, non, c'est une façon. La souveraineté du pays. Non, ce que je dis là, c'est une façon de parler. Hmm. Parce que moi-même, je fais partie des gens qui croient que si réellement la démocratie marche, on n'a pas besoin peut-être d'hommes forts, comme vous dites, hmm. mais d'institutions fortes. Voilà. Parce que quand les institutions sont fortes, les hommes sont... Équilibre. voilà. Quand les... un premier ministre est à tes côtés. Voilà, mais, mais, attends, j'en arrive. Quand la les... preuve, Nico Fidef, après le président de Flem pour bouger le cas récent, Idrissa Seck, Mais c'est différent, c'est différent. C'est fragiliser notre pays. C'est différent, c'est différent. Parce que, euh, bon, on a des institutions fortes, ni que des hommes forts, ils ont et le président de la république qui trempe Trump. maintenant il faut que jëlal affaire yi en main Téko, pour l'IGB, bi moom mu gën chambar. parce qu'il ne faut pas oublier que le président avait fait un mandat de sept ans mm. maintenant il lui reste cinq ans alors que war attaquer la phase 2 du PS, e, war song beaucoup de projets. war phase phase 2. jamono. voilà voilà mom la wax ni. ans yi ngeen koy troisième mandat non non non moi je parle même pas dans cette logique. du troisième mandat. je parle en tout cas ci li nga aujourd'hui il ans yi dañ ko def comme président affaire yi dafa war a gaaw ñun ñii dañu war a nekk ay fast trackers nekk ay fast pour affaire bi gaaw kenn ku nekk ci domaine ba nga ne nga exceller ci ba def ci nga xam ne moom lañ lay sant et moi je crois que ci cadre boobu mun nañ am yaakaar ne euh, loolu moom moo tax président de la république indiwaat benn réduction et puis sénégalais il faut aussi que les gens xam nga dañuy wax ne on peut pas aimer une chose et son contraire sénégalais ñoo daan wax train de vie de l'état dañu war a wàññi nii ministre yi nangam dafa ëpp dafa lii Mais aujourd'hui, le président est en train de rétrécir tout ça. Wagner ministère d'abord, regrouper certains yenn qui d'une direction yi bo ko ministère yenn yi boole cohérence bi nga même le président bëgg pour nous liggéey ici. donc ci l'as lay dox actuellement ni loolu moo indi mu mu gouvernement bi pour beaucoup plus d'efficacité, en tout cas dans l'exercice des, des, des, des, tâches qui leur sont dévolues, mais tout en étant le superviseur principal pour mener conduire les réformes, parce que le président de la République, mom nous fal, moi rendre bilan, moi rendre compte, kon mom mo wara jël ay matuwayam, jël xalaat ne li buma ko défé dinañ dem ci kanam, mu def ko. Donc il faut que nous saluions vraiment à sa juste raison disposition yi nga xamné mom le président commencé pour djema djema jëmale Sénégal ci en tout cas atteindre l'émergence euh, d'ici 2035 comme nous ah, ah, alors tay jii ni suñu jëlee rapidité boobu nga xamné yow jamono bi mom ngay prôné ah, donc lancé par le président de la République euh, bu ko lool buñ koy def est ce que tay jii nii warul waru won nek. donc lo xamné avant même euh, donc la le mandat de de cinq ans biñu ñuy dugg nii na fekk au moins ñu am les prémices préparé ko c'est-à-dire dans l'administration dans la gestion ñu commencé donc jël ay prêts là parce que lu nañu ko tay di ay euh, si euh, li nga xamné mom lañuy euh, soumettre les marchés li nga xam ne également soo soxlee lu jëm si walum keuyit mo xam da nga nek ci entreprise wala nga nek ci société tout le temps il y a des retards yo xamné ne boo administration nga dem sax au niveau donc des affaires judiciaires là également voilà donc des fois dañ dinañ la denc lu yàgg ñu lay atte est-ce que tey jii nii et cetera dama jël mention yi rek. Mhm. mais est-ce que tu jii nii loolu mën tax ñuy def une politique de fast oui parce que warul nekk rek ay slogan non non mais attendez quel slogan. on n'a jamais on n'a jamais donné des slogans creux comme ça non si vous prenez le PSE par exemple prenons l'axe 1 transformation structurelle de l'économie vers une croissance inclusive. mais xoolal li nga xam ne moom la président Macky Sall def ci axe 1 boobu déjà boo xoolee ci wàllu mbay mi boo jëlee ci wàllu napp gi boo jëlee ci wàllu càmm gi boo jëlee ci wàllu ci wàllu école yi université yi nga xam ne tabax nañ ko demal dem jam ñaajo e la là très illustratif y actuellement des sphères ministérielles moi moi-même qui vous parle bu ma xëyee jam ñaajo laay liggéey avec d'autres ministères ils vont venir à Diamniadio pratiquement il y a beaucoup de choses yu nga xam présent président a une arène à arena bi y a stade pour les pour les pour les lutteurs avec d'autres il ak en attends j'arrive j'en arrive Il y a ngi fi hmm. par exemple au-delà du PSE le président avait initié, si je peux l'appeler ainsi, des programmes additionnels à l'image du PUDC hmm. pour que le Sénégal des profondeurs, parce que si Réumilène Bok, foofu tay demal demal demal dans le Sénégal des profondeurs nga gis li nga xamné mom le Puma def les zones frontalières par exemple ak le PUDC des pistes de production des forages de l'électricité lu ne dafal nañ ko dans dans le Sénégal des profondeurs donc tay mënuñu wax né président de la République liggéeyul té lolu ci ben volet la bo jëlé walu énergie nga xol nga xol bi jël pouvoir bi en 2000, en 2012 plutôt on était à 300 mégawatts président bi mu ñëwee yokk na si mégawatts aujourd'hui est-ce que déggati nga ay délestage ku xuy kamaj xuy kamaj. tane non pas tane pas tane. c'est-à-dire non du tane non du tane non du tane xam nga xam nga xam nga tane tane. day fekk sans compter ay ay centrales à charbon yo xam ne dañ koy non attends Jean non attends non non non non non attends non non non attendez attendez attendez mooy li ma la sank rek c'est-à-dire euh, xuy kamaju Sénégal yi lepp ñëpp fi la ko fekkoon mais tay je vous le jure. Je vous le jure. Je vous le jure. Si vous, ah. si vous voyez une coupure de courant, c'est des pannes techniques, mais le courant, on en a suffisamment. On en a suffisamment aujourd'hui. peut-être on peut sax la sous-région hmm. en matière d'électricité et puis si si faut la vision du paysan il y a une révolution solaire avec les les centrales de Malikunda, centrales de Bokhol mais mais mais mais centrale à charbon la charbon la poussière la non non non attendez cest à il faut pas aussi nous dire affaire mais le centrale à charbon sur les impacts sur le l'environnement et tout ça donc c'est-à-dire le président Macky Sall c'est pas un état état bo xamné day tâtonner c'est-à-dire li def daf koy tek ci yoon ak des analyses yu lèr ba mu xamné li luy jariñ askan bi la mu def ko président du def lenn lo xamné li luy luy. faagaagal askan mais mais moo tax ma ne mënoon na dindi centrale à charbon bi mënoon na dindi. non parce que yow dem nga bay def éolienne def gaz. def def également solaire. nga andi centrale à charbon charbon charbon bi déjà dang kay importer ah loolu man je pense que bo démé ba population yi nga xamné ño fa deuk gis na lii mënul dem fune yuxu nañu fa kenn mënu leen wàllu si mais tamit. mais non te responsable du département. non non non kenn du non bu ne non non non non wàllu wàllu yu leen non il faut pas dire ça. non non non je te pose la question oui c'est-à-dire fofu gaay yi ñi ngi ci doon dox ay jéego yu am solo. ay waxtaan yu am solo doon nañ ko ci def amna ay ay ay ay ay assurance yu leer yu len leen tegal wax len ko lu ci bari comprendre nañ ko amoon na ay ay difficulté c'est normal aussi parce que gis nga lépp lu nga xam loy def la lu la lu bess il faut mu am am am jeexital bi muy am ci yow mo lay indil des fois ay ragal ay tit ay yenen ak yenen mais yooyu yeb gaay yi jël ko en compte ba nga xam problème yooyu yeb dañ koy réglé. premier ministre mom promettroon na gaz. oui 2021 on y est presque. Hein? oui oui oui ba ñu gis non mais attendez euh, moi je crois que quand même il faut ñu comprendre que ne euh, manam li génné sunu gaz génné pétrole génné yenen ak yenen yi fi am yeb c'est des investissements très lourds qu'il faut mettre en place pour mon di exploitation bi exploration exploitation et, et éventuellement la vente que euh, un peu partout dans le monde. est-ce que vous aussi tubaab bi ñoo joxeegul sen xalaat. non c'est pas problème non non c'est parce que accompagnement. non c'est non pas un problème de de bi c'est c'est ça où je disais que aujourd'hui faut que wara tax nak ñun ñu parce que nous sommes ñun Afrique dañu war a booloo d'abord mais il faut s'ouvrir aux autres c'est-à-dire tay lépp lu nga xam parce que bu Fatene aussi nous sommes un pays sous-développé am lu bari il faut que ñu nangu aussi di aux autres les plus développés am ay partenaires gagnant gagnant yoo xam ne dina dinañu woo xaalis bu bëri pour ñu liggéey bu ñu paree root affaire yi yóbbaale ko non pas il faut pas dire ça pas root yóbbu affaire bi mu dem man je crois que ne le Sénégal sous Macky Sall en tout cas nit ñi dinañ gis les prémices d'un d'un début de développement dinañ ko gis te dina permettre bu fi Macky aussi du am ben parce que dina fekk affaire bi tek nañ ko ci raay ba nga bi rek nekk quoi et moi je crois que ñun Sénégal bu ñu andé essentiel bi ñu ñu kuy opposition kuy pouvoir parce que ça c'est l'intérêt supérieur de la nation buñ fa eggee rek réew mi dina dem ci kanam d'autant plus que nous avons beaucoup de paramètres ak yeneen ni affaire yo xam mu ngi ci réew mi yu tax Sénégal wara mëna dem ci kanam et moi je crois que le président de la République est en train de faire un travail extraordinaire par rapport à ça nit ñi fi mu li ci nek moy nañ ko jappalé ñun ñëpp di kenn ku comme si ngeen est nii di exceller et je voilà c' est ça. <laughs> ñeneen nek feneen aussi du dos, c'est comme ça. Euh, Abdou Aziz instant nek lo ci campagne électorale. alors am nañu ben gan ci euh, euh, ci téléphone bi mhm. allô demna voilà demna donc ngeen ñi bëgg poser ay question andi sen contribution ak ñu mel tay suñu gan ci jakarlo politique moy Abdou Aziz Seck mom moy euh, mouvement bi nga xamné euh, modi euh, MPSE fekk baax ci fi nga également keur daw de sar fi nga xamné également modi commune bu Bambilor man ngeen ko wo ci 88 628 0013 yene a sax en direct ñu ngi en direct du moins ci Bargny wax sa xalaat Rufisque wax sa xalaat etc sama xalaat ci commune bu Bambilor fofu yeb di ay groupe ay forum man fa dem également donc suivre en direct poser ay questions ci Facebook bi ak Assane également sur le lien euh, nous donc partager en même temps 88 euh, 628 euh, alors abdouaziz est-ce que es appelé président de la république bi moi appel bien à challenge clean up ah, non non la def challenge clean up comme euh, euh, slogan yi rek ah ay voilà mu ngi noonu est-ce que tey jii nii les les sénégalais dañu war a mën a gis seen bopp ci challenge boobu c'est-à-dire seetal réew mi defar réew mi Assane dafa am keneen voilà 88 628 0013 salaamaaleykum allo. allo oui salaam. sëñ bi noo def. ça va bien Moussa. waaw kooku. Euh, Matar Ndoye Tëngéej. Eh, Matar Ndoye. mais kii ah, Matar sa sa waay moom la de.

parce que générique bu ko déglu am leer. waaw ah, Assane Assane def naa li li muy wax nii man ak yow waxtaan nañ ci. Euh, di ngeen di ngeen yedd journaliste yi mais di ngeen ñu yedd mm-hmm. parce que bul def lépp loo wax nga gëm ko. Mm-hmm. da ngay ak la ca loolu dafa am solo. la. donc euh, di rafetlu euh, question yi nga posé Abdou Aziz la réponse yi joxe aussi. macha allah vraiment c'est un ami c' est un frère. mais mm. c' mais mën nga wax ak mën nga wax ak moom mu ngi lay dégg. waaw te Abdou Aziz. Mm-hmm. Maxtaar. ça mon frère. maa ngi laa fay bu baax ndoy. merci beaucoup mon frère. waaw di kontaan ci yow si euh, question yi nga posé ak réponse yi nga apporté. Mm-hmm. yow moom mën nañu wax yow parce que tu es un homme très positif. Mm-hmm boo xamee ne lu baax rek ngay dox lu am njëriñ rek ngay dox te booloo ak euh, émergence dëkk bi moo la mhm. donc ñu ngi lay félicité. merci vraiment ci loolu di rafetlu tamit émission mhm. euh, parce que li ngeen ci wax yëpp am na solo. absolument mais man damay damay jukki ñaari affaire rek. Mhm. wala ñett. Euh, en guise de contribution. benn bi mooy wax ngeen ci par exemple élection yi. te ngeeg taxawaay bi ñu am. Mhm. ci wetu président Macky Sall ba mu am deuxième tour. Mhm. deuxième mandat. Mhm. alors loolu euh, waa Tëngéej ñi ko def man nañ joxe explication. ñu mën a dugg ci loolu parce que dañuy def rek contribution. absolument mais wax naa ne tamit message bi ñu jox président Macky. defuñu ko rek parce que dañ ko bëgg def dañ ko def pour mu jàppale Tëngéej. jàppale Tëngéej ci ay projet am jàppale le maire. yi nga xam ñoo nekk le maire de la ville de Rufisque jàppale les les communes du département accompagner leen bañ a bloquer seen ay ay projet mais soutenir leen li ci des mooy notre jeunesse parce que notre jeunesse a na ay compétence yoo xam ne ñu ngi ci biir ñoo mérité nañ ay ay niveau de responsabilité jàppale nos femmes le plan Sénégal émergent bi ñuy wax mu feeñ ci doomu Tëngéej ci seen dund ci seen dund ak seen environnement loolu moo tax ñu jox ko message boobu mais du parce que dañ ko wateel rek parce que moo ñu neex déedéet dañ ko wateel parce que dañ am yaakaar si moom yaakaar boobu nag ñu ngi koy ñaan vraiment mu baño a mu bañ a tas beneen bi mooy PSE bi ngay waxtaane euh, bi ngay waxtaane sànq man PSE li li ma si intéressé mooy gis nga vision da koy jëlee fu xóot yóbbu ko fu sore gis nga Touba Serigne Touba ku liggéey kontaan trop. jërëjëf jërëjëf Matar Ndoye jërëjëf. voilà jërëjëf euh, Matar. jërëjëf ñu koy jaajëfal lu bëri yéen tamit ah, donc ah, su ngeen bëggee contribuer wala ah, donc poser vos questions à Abdou Aziz mën ngeen woo ci 88 628 0013 ñu ngi également ci Facebook donc tous les groupes sociaux yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi ñu nga fa nekk en direct ak Assane Diour alors donc ci li nga xam ne moom la ñu nekkoon est-ce que clean up boobu nga xam ne. Euh, tey moom la euh, donc président de la république def ci woote est-ce que également ces sénégalais yi mën nañ ci gis sen bopp ci jappalé bi nga xamné mom nga wax né kenn ku nek da ci wara dugg. la en fait. Euh, c'est vrai qu'il a raison ah dëkk bi voilà. oui lim na. c'est ça voilà te am vraiment encombrement yu bari. absolument absolument xam nga bo gisee comme ni ma la ko waxee rek président bi mu ni euh gis nañ né il a donné un signal fort même sur la formation du gouvernement ni mu ko doxale ni mu nit ñi amna lu leen président wan Fofu. kon gis président mi li ñor moy réew mi dem motax euh bo xolé amna ay incohérence yu bari daf ko daf ko daf ko commencer daf ko dindi même si ni ñuy gouvernement bi amna ay ay ay ay direction yo xamné fañ nekkon est-ce que du mu leen fa fu nga vraiment fi moy euh, fa la wara nek mu yóbbu leen fa yoy yeb daf ko def pour euh, pour souci d'efficacité alors euh, tay d'accord nañ né Sénégal nous avons des problèmes avec la saleté ça ça vraiment le dire c'est c'est dire la vérité alors mais comme président dafa ñëw jël ka à bras le corps mais ken warul noo manam ken warul la gënal sa bop mm. ñun Sénégal 7 mais moi sunu suis moi moi moi parce que avant la santé avant tout kon bu président jëlé lolu def ko un problème majeur instruire ces services les ministères les services qui nga de ñu ngi pour ñu taxaw temps pour régler et moi je crois que c'est loolu et je crois que l'appel du président a été très réceptif parce que j'ai vu Fofana qui a pris vraiment le le le taureau par les cornes mm, il a impliqué impliqué impliqué mais impliqué aussi toutes les autres couches de la société mm. en tout cas pour nous faire taxaw euh, fexé ba lolu ñu mën ko tëjee maintenant nak sénégalais ñoy dimbali nit ñi parce que mëno ñëw ba ay mbedd fu nit ñi wara jaar ñu tek fa ay ay ay ki yu yaxu ay auto waxal de waxal de parce que ah généralement ah, mbir yi dañ koy dindi parce que kër ga ngay wax. parce que moom ah dans son message hein, bi muy def à la nation. def ne won kër ga d'abord c'est ça mbedd mi. absolument après dëkk bi. tout à fait malheureusement sénégalais dañu tam. C'est ça ku raxas ba paré bo gesso ken gisu nga paw ci mbedd mi duggaat sa bir kër. c' vrai je pense que. ngay wax noonu foofu moom dafa am solo dafa am solo absolument et hmm. loolu man je crois que ne bu ñëpp jàppee rek mun na dem quoi et puis ko def parce que sénégalais yi aussi gis nga li ñuy wax ñi yëpp lu baax rek lañ bëgg aussi bu ñu defee affaire yi mu gis ñu gis résultat bi automatiquement da ngay gis ne dañuy aéré am na benn moment à Rufisque bi le maire jël defar ville bi di coow li bari. Hmm. mais après yow fa jaaree gis affaire bi ni mu setee da nga mais franchement aussi lii tamit lii la nii la war a demee c'est il faut que nit ñi ñu accepter ñuy ñu cest booy def dara nag il faut mu metti hmm. mais métti bi après résultat ba bi ngay am ci kanam nak après mom day tax nga féex. waaw mooy comme boy soutenir euh, li nga xamné mom moom la tout à l'heure tax ndoy doon wax. mais absolument Serigne Touba jëf lu ci ëpp ci gannaaw la fay. mais tout à fait quand je te disais que le président dafa am vision jël Sénégal wax 2035 hmm. c'est parce que mom xam na ne en 2035 il sera pas président dina am kenen ku fi hmm. mais cette vision là bi mu am c'est parce que pour réew mi dem ci kanam. Hmm. Euh, je te donne l'exemple de la Corée. Corée. 50 ans, 60 ans, ils étaient comme le Sénégal, ou, peut-être moins loti. Mais ils avaient un président, bon xam ne bii ba un plan oui le président Park plan bon mu indi woon coréen la dañ ko c'est-à-dire sauf même l'administration dañ doon jusqu'à mourir quand je te dis jusqu'à mourir nga ah non liggéey ba quand quelqu'un mourait dans ce combat-là, dans ce travail-là, dañ ko don def mm. ay ay objectif national pour wané né donc liguer rek moi am solo aujourd'hui c'est Hyundai c'est Samsung il y a tellement de choses avec la Corée mm. pour wax la kon am rew vision moo koy doxal mm. et cette vision-là le président Macky Sall là, il l'a très tôt compris texte sénégalais donc na gaay jappalé ko pousse ko andak on va vers l'émergence alors on va vers euh, l'émergence Mandé de dama euh, peut-être donc sur le sur euh, les dispositions sur la politique également les effets <laughs> oui ça sonne bien donc on va vers l'émergence on a notre PSE malgré les mais donc un peu sur le plan local Les nga qui ont parce que Euh, pour le développement du département yaakaar day am tout le temps ci koo xam ne mooy toog ca taabal ja bu gaañi waxee mu ne ah ñun kat hmm. département ñun kat département nga amoon si ñaar ñett ñeent waaw tey léegi nii mu dess ben Omar Gueye lan la oh, Ismaël Madior Fall daa deful li mu war def wala lu xew qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que mu wara a jekki nii rek mu dess Omar Gueye voilà donc euh, si son hégémonie dans le département mom rek mu continuer di fi des en tant que donc kuy euh, le la PR ak ben Bokk Yaakaar dans le département de oui en fait xam nga je tëngeej hmm. comme ni nga ko waxee président de la république yaakaar naa ne am yaxin la ci tëngeej ku bëgg Rufisque la parce que boo xoolee waaw. ah dafa mel ni am na ku ñu nekkal ci euh, également ligne bi euh, moom WhatsApp la jaaree salaamaaleykum allo. maaleykum salaam wa waaw sëñ bi ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu yow yow la kan ak fooy wootee. en fait maa ngi tudd Moustapha Sarr. Moustapha nekk euh, jeune waaw responsable politique bu nekk dans la commune de Bambilor. ah d' accord. da nga wax ak Abdou Aziz wala poser question. Mhm. mu lay dégg. waaw waaw dama bëggoon def contribution bu ndaw ziar leen leen ñëpp. jërëjëf ñu euh, bu baax bu baax aussi si suñu grand bi ngeen invité noonu muy Abdoul Aziz. Mhm. Euh, di ko di ko di ko di ko félicité bu baax de plus di rafetlu engagement ak euh, travail de titan bi nga xamante ni mu ngi koy mëne si jàppale son ministre le ministre Omar Gueye di si jàppale aussi le président Macky Sall à l'étendue du département mais aussi partout au Sénégal PS mm-hmm. donc di rafetlu pom aussi bon motax ma gën dugg parce que li mu wax ci PS e maanaam toy na doy na euh li mu wax rafet na te kennul aussi li ligne bi nga xamanteni ni ci lañu président Macky Sall tek pour le Sénégal émergent wax na lepp seulement di contribuer bu ndaw rek di wax ci l'homme en tant que tel euh niko yalla def mu nek un fédérateur nek un médiateur Tamba nekk grand ñëpp comme ni ko Matar waxee sànq koy saluer lu rafet rek lay dox lu rafet lay wax ñëpp la yéen a jàmm ku mel ni moom aussi le département daf ko soxla ko nit ko aussi da nga koy seetal jikkoom rek ak li nga xamante ni moom lay def si baax euh, ñu di ko encouragé di ko alo allo Moustapha. mën nga ko wax directement ah, ah. mu ngi lay dégg. waaw di ko wax Aziz rek une fois de plus may lay wax ne fi nga ah. téye foofu la. merci Moustapha. et que et que ñun bokk nga si grand yi nga xamante ni naw nañu leen. parce que dañu judd aussi fekk leen ngeen def politique. Euh, nga dem benn instant nga ñëwaat mais ba nga ba léegi changé wuloo si lu ñu xam si yow ba léegi loolu la ñu xam si yow donc ñu ngi la wax ne ñu ngi ñu ngi xool si yow ñu ngi roy si yow. merci euh, et que fi nga jàpp nga du continuer. merci beaucoup. Moustapha Sarr euh, ñu koy. waaw waaw ma nga ca buum ba tey waaw. Mhm. Mhm. merci Moustapha. jërëjëf jërëjëf moom di di di ko wax rek mu a gën

waaw bon man parce que la commune de mhm. euh, la future ville euh, axiale stratégique. parce que par rapport à euh, banlieue la future pôle des Grands nga future futur pôle du lac ak bu jouer un rôle stratégique pour maintenir ni futur corridor donc may wax Aziz moom enjeu nga rek à ce que ñun ban taxawaay lañ war a gën mun amee ñun nga xamanté ñu som dans dans dans la commune de Bambilor donc je vous remercie. très bien merci Mustafa merci beaucoup je vous remercie. jërëjëf euh, participation bi rafet na voilà ah donc euh, c'est yi rafet également. merci alors ban ban ange enjeu yi nga xamné mom nga gis ci ces cet axe euh, bi nga xamné mom le donc Bambilor di di représenter véritablement donc si nga xam ne moo di pôle bi nga xam ne moo côté boobu ci les 4C. Euh, impact du Mouyoura dans le département et dans le Sénégal question je pense que c'est une question également absolument en fait euh, bon, est tey euh, ni région de Dakar bindo moi même j'ai été à une réunion Euh, j'étais parti représenter la commune de Bambilor à mm-hmm. Dakar et on, on parlait du, Grand Dakar, c'est-à-dire le, Grand Dakar, avec tout le... agglomération. Toute la région de Dakar. Absolument. Et les gens parlaient par rapport à ça, les terres. Je leur ai dit, mais écoutez, aujourd'hui, à Dakar, dites-moi là où il y a des terres. Il n'y en a pas. Mhm. Les terres, c'est au niveau du département de Rufusque et plus précisément dans la zone des Niaï, la commune de Sangalkam, Bambilor, tu as et un peu au niveau de, de tout ça. Il y a solo, qui fi nga xam fa lañ jëm ci parce que tay euh, ku a, gis un un développement euh, extraordinaire comment dirais-je a un boom en tout cas même démographique parce que nous bari ñu ngi ñëw parce que la wax souvent que ni nit duñ dëkk si garab yi duñ dëkk si géej gi si si si jéeri ji la ñuy dëkk si suuf si donc les gens ñooy ñëw moo tax fi nga xam ne comme ni ko olof di waxee euh, àll bi mooy taxal tool yi tool moy mooy toxal maanaam kër yi mooy toxal tool mhm. mais justement est-ce que loolu du constituer le danger. parce que tey voilà on prend une zone bo xamné elle avait un aspect rural. Mhm. tey di ni ñu bëgg ko def un bâti carrément donc mais day de d'autant plus que fofu boko setlo loi euh, pour contourner la les les Niayes mo nekkoon le poumon vert presque. du oui oui mais attends oui mais attention. Euh, bien que ngay wax lu am mais euh, président Macky Sall aussi. Fofu, il a amna ay mesures ay mesures fortes en l'occurrence le DAC de Sangalkam et puis Fofou je salue le courage du président Sall mm. parce que Fofou le le les terres de l'Israël, euh, pratiquement avec l'ancien régime gars yi dañ se choses qui ay du fune président beau annuler bo yëpp wax ne nañ dox si les jeunes les femmes yi dëkk que gox bi la région de Dakar pour nous liggéey. c'est le cas. non c'est le cas aujourd'hui tout ça est en train d'être matérialisé. Euh, est-ce que concrètement il y a des génies qui xam vous savez que c'est un potentiel. mais aujourd'hui actuellement au moment où je vous parle. on est en train de travailler sur ça Les yu bari ñu ngi pour nous préparer à faire ces projets, pour nous mettre un petit souci.

Euh, en fait, euh, toute la région était conviée, il y avait le département, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus à cette rencontre-là. Ils expliquaient le pourquoi jeunes yi war a ñëw taxaw góorgóorlu def seeni projet ñëw ñu jox leen suuf accompagner leen parce que dañ lay jox suuf si accompagner la jox la li wara yeb yeb nga liggéey ba pare bo liggéeyee li ngay am yow yakoy jaay yakoy jariño kon pousse boobu ñu leen di def amna solo moi je crois que ne oui c'est vrai qu'il y a des difficultés et moi-même j'ai entendu le président de la République dans un discours je pas c'était un discours à la nation je sais pas en tout cas il avait parlé que ñi nga xam dañu amone ay jafé jafé à Tivaouane Peul sini problème de il est là. dinañ ko régler dinañ ko régler. dinañ ko mo bari ba légui mais dañu sa di. non xam nga non attends di pourrir ñëpp di kaas di. non non attends ñu nan dinañ ko dinañ ko ba xam nga xam nga tamit. ba no, attends attends je vais vous dire. xam nga hmm. dafa am problème yo xam bokay régler. Hmm. ampleur problème bi ak nature problème bi ak jafé jafé problème bi day tax woné ñu ngi mais ah mais très bien. ngeen di non non fast non absolument non absolument du président et je crois que nous ñi euh, département euh, pour mm-hmm. revenir un peu peut-être sur première question bi par rapport avec le département. Mm-hmm. en fait euh, quand le président parce que le président de la république mooy nommé au poste civil et militaire. Moi, mm-hmm. moi, xalaat ku nekk lu lu ne fii que ko mën mu def ko moi je crois que le président de leen xañ euh, nañ trois ministres il y a Ismaël Madior Fall ministre de la justice garde sceaux que je salue au passage qui a fait un excellent boulot moi sax aussi hein. absolument qui a fait un excellent travail Ismaël qui a fait un excellent travail et aujourd'hui on s'est vu donner le président de la République jëlaat Nkou. Hmm, excellent travail nous remercier le ministre. <laughs> le conseil problème d'appréciation yi Sénégal xam nga yoy nit ñi mais ah, président daal moo fi taxaw défier Abdoulaye Wade di aéroport war romb fii mu taxaw ni oui xam nga loolu engagement politique la parce que politique aussi gagne dañuy bëgg di gis ñuy mouiller le maillot. oui mais mais non mais non s'il s'agit de mouiller le maillot moi je crois que Ismaïla a beaucoup mouillé le maillot. ah bon ah oui durant ces durant ces élections là non de la Justice. ne. ne, ak privilégie ministre de la justice am mais mais attends attends mm. attends ma ñëw. Mm. affaire Sénégal mm. nekkul ci ne euh, poste ministre rek nga war a yor pour liggéey non et aujourd'hui moi je crois que le président de la république vous n'avez pas démarche xam ne ngi des réformes fondamentales pour le pays mm. et sur ce si vous prenez quelqu'un comme Ismaël Major Fall tu en fait un ministre d'État auprès du président de la république mm. c'est parce que soxla xam mm. mais nous c'est c'est l'un des meilleurs constitutionnels du Sénégal de de, l'Afrique peut-être même de l'Afrique ah, c'est un un c'est un brillant intellectuel c'est quelqu'un boo xam ne bi dañu soxla xam-xamam hmm. et ci cadre boobu président bu ko woowee takk ci c'est parce que bëgg na Ismaïla jàppale ko ci réforme yi bëgg jàppale ko ci réew mi kon Tëngéej ñàkkul dara en ismaël n'est ministre mais Omar Gueye reste l'homme fort du département ça vous Omar Gueye vous en convenez oui c'est-à-dire Omar ton ton ancien ministre donc de de la pêche nga xam d'ailleurs loolu la jëlee loolu la jëlee ci euh, ci poste ba mu la ba nga son directeur de cabinet xëy non j'étais son chef de cabinet autant pour moi non xam nga politique xam nga politique aussi dafa anda ak mobilité dafa anda ak changement Oumar Gueye Oumar Gueye non Oumar Gueye c'est le c'est le ministre c'est le coordonnateur de l'APR dans le département et coordonnateur de Ben Bokoyaka. mais le ministère c'est le c'est le ministre lui le ministre Comme le président présenter, présenter. très bien donc mon à un moment donné, man la Djelon, comme chef de cabinet de 2013 à 2016. Mhm. j'étais son chef de cabinet. trois ans durant. trois ans durant ma dit ko féliciter ko remercier aussi. si si si non ça dit dire c'est des problèmes liés à la politique. mais c'était pas c'était pas. la est-ce que dafa dafa nekk lu ñu c'est tabou dañ ko warul mën a non ça veut dire quand je dis des problèmes politiques moi des fois di am di nga am. ah parce que dama dégg ci Sarr tout à l'heure mu ne jekk demoon nekkoon nga fi ba mu yàgg. non oui non ça veut dire lui peut-être il fait allusion à mon disons mon séjour en Europe. D'accord, comme ça n'a rien à voir avec, euh, non, non, le Non, non, non, non, non c'est pas. Non, non, du tout. Donc, euh, il a fait, il a fait venir un autre qui est un frère que je savais au passage, Ghana, avec qui aussi nous avons, partagé, beaucoup de choses quand on était jeunes, dans, toujours dans le cadre du parti, dans le cadre de, euh, la politique, en tout au niveau du département. Donc, euh, qu'il le pendant trois ans, dafa son champ de campagne c'est une confiance que que que moom pond lu nekkul ci problème yi ngeen am di yi amoon diggante Matar ak son ami Souleymane non non non type de problème non non c'était c'était pas c'était pas la même nature des problèmes franchement moi je vais pas peut-être entrer pas entrer dans les détails du problème de Matar et tout ça parce que ça ne nous grandit pas c'est des problèmes que nous avons dépassés aujourd'hui mais ce que je peux vous dire aujourd'hui moi je suis avec le ministre Oumar Gueye je travaille dans son ministère, quand il était ministère de la Pêche, j'étais au, euh, niveau de la cellule d'études et de planification. Donc, euh, mm. aujourd'hui, je suis encore là-bas. Maintenant, lui, avec je ne peux que l'encourager, le féliciter. Et je sais que comme je le connais en tant qu'homme d'action, homme, de terrain, quelqu'un qui, qui, se donne à fond sur le travail, en tout cas, je, je lui prie pour qu'il réussisse en tout cas sa mission mm. Euh, le président lui a signé tout en sachant que euh, là, euh, dans le cadre du travail, il, est, il, il, fait le maximum possible. Voilà, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Donc, Omar Gueye, bon vent. Hein, donc, qui passe au bout de la C'est vrai que man, on a ça à ma inquiétude. Djogé, ministère de la Pêche, l'économie maritime, il faut également été énorme. de délouer collectivité locale. Bon, J'espère qu'il a un impact également sur ah, le département fiscal oui mais bien sûr la même parce que comme ni ma excuse-moi tuuti. su may wax man le département puisque c'est parce que voilà localement d'abord ça vous yu quand je dis que les Si ñu bu fait un rappel bu ndaw. Hmm. war nañ comprendre ne même ñun dans la zone là le département du fisc, la zone de Sangalkam dañu ben histoire politique bo xamné bi jaar fi ak l'ancien régime. je pense que c'est 5 minutes hein, parce que lañ commencé six. avec l'ancien régime mm-hmm. euh, ba nga xamné ne indi na découpage bi mu indi euh, à chaque fois ils ont mis Omar Gueye en délégation spéciale une fois deux fois et finalement ñu war ko yóbbuwaat délégation spéciale ba mu indi ce qui s'est passé avec la mort de Malick Ba. et ñu jël ben commune trois villages jox Omar Gueye. Mm-hmm tout ça, quand il le faisait, oui, c'était c'était fait à dessein. Hmm. C'était en fait la liquidation non seulement de Morgue, mais Sangalkam de la carte géographique de la zone. Hmm. C'est-à-dire que Sangalkam, peut-être, étant une qui n'est pas viable, sera rattaché quelque part et voilà, on n'en parle plus. Mais, mais ils oublient que Dieu est là. Et aujourd'hui, ce même Omar Gueye qui s'est battu, combattu avec tout le monde dans la zone. Hmm. Tous les, tous, les, tous les zones. Oui, ça c'est privé. <laughs> Euh, mais tous les amis euh, Oui, oui, non, ça dit, quand vous parlez d'amitié, je dis que ça c'est privé. Moi-même, j'ai été, euh, je dis que j'ai été un artisan de J'étais un artisan de Réoubi à l'époque, mm. mais quand Omar Gueye a eu des problèmes avec Idriss mot resté, moi je suis resté. Et depuis l'Italie, j'ai fait ma déclaration. D'ailleurs, si vous vous rappelez, il y avait un journal, euh, L'Observateur, qui avait titré Le porte-parole de Réumi en Italie soutient Omar Gueye. Et quand je suis venu, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai accompagné jusqu'à la création du, du le vaste rassemblement pour le progrès, avant d'intégrer la PR carrément pour devenir un militant de, l'Alliance pour la République. Mm-hmm. Mais lui, selon moi, eh, buñu fatali ko né zone bobu kon dafa am ay ay ay ay incohérence territoriale réelle mm-hmm. et lolu bo xolé temps yi di nga gis les villages des cinq villages que nous avons, Lo Kër Daaru Kunun ñu ngi doon def ay marches di dox di casse ci demander à ce que ñu érige en commune et moi je crois que né cette cette lutte là c'était depuis 2013 c'est pas un risque de jël ay village villages non non attends voilà non attends faut la c'est pas bon pour pour Sénégal parce que aussi eh, communes tu ne peux même pas couvrir au moins donc un budget de. de de non mais il faut faut laa il faut laa jëm ma ne la li réclamer une commune qui leur est propre et puis a un combat porté par les chefs de village les les femmes les hommes, tout le monde. Il mm-hmm. faut ñu nga d'accord mais aujourd'hui pour revenir sur li nga moi je suis parti je suis parti des gens qui nga dit dañu war régler problème yooyu parce que mënoo jël comme dëkk bu toll ni sàngal kam ndox njafara njaxiraat noflaay teg fee tu prends Kër Daawda sar Kundun teg fële tu prends Kër fële teg fële mais ce qu'il faut faire mooy xool ndax Kunun Kër Ndiaye Lo Kër Daawda cité Enseignant, avec les nouvelles cités yu Cité Sukosim, cité euh, le euh, cité euh, comment dire tout tout ça tout ça nouvelle il y a tellement de cités là qui plus dans cette zone là que nous pouvons avoir une commune viable mm-hmm. tant plus que attention c'est ce combat là quand nous le portions on avait élaboré un document béton que nous mm-hmm. avions déposé à l'époque au ministère de la gouvernance locale mm-hmm. Et c'était un document bien ficelé, béton, argumenté avec des éléments réels, les ressources qui feront vivre la commune et tout ça. Donc moi, je crois que c'est un combat légitime que les gens sont en train de mener. Maintenant, c'est à, apprécier par rapport au président de la République pour quand même nous corriger certaines incohérences territoriales. Mhm. Et maintenant, c'est là où je suis d'accord avec toi, qu'on ne découpe pas pour découper, Absolument. mais on doit faire de sorte que les communes, en tout cas, qui seront éligées seront des communes fortes. Nous mhm. avons la possibilité, en tout cas, de leurs moyens, que nous avons ni commune qui ni ni moyen, am salaire, mhm. Mhm. soulèvement Et moi, je crois que des soulèvements, on en a plus. Et on n'en veut plus. Alors, MPSE. Euh, MPSE c'est le mouvement patriotique sénégalais pour l'émergence. Mouvement patriotique euh, sénégalais pour l'émergence. Est-ce que le MPCE, beaucoup de gens boosté l'élan politique de APR, de Benno Bokoyakar, qui ont conduit à la victoire de, de, Macky Sall. Est-ce que MPCE, politiquement, a un engagement Parce que, man, de mémoire, je ne vous ai pas vu vous investir sur le plan. Voilà, bon, donc y a euh, ñu dem ci reportage sur le terrain. Mhm. qu'est-ce qui s'est passé. alors euh, moi quand j'ai créé le mouvement patriotique sénégalais pour l'émergence euh, tout Rufus qui était là, tout le département était là. J'ai fait le lancement et vous avez vu ce jour-là comment. À mon nom, Très bien. Mm. Alors, il s'est trouvé qu'à un moment donné, moi-même, j'étais, si si vous avez cette information, j'étais un peu souffrant. Oui, c'est lourd. Et que j'avais quitté même le pays pour aller me faire soigner et j'ai pratiquement fait cinq mois et demi en Europe. Euh, et machallah Dieu, Dieu a fait que vraiment Mangi ngi sant et là aussi j'en profite pour remercier le ministre de la pêche à l'époque Omar Gueye le nouveau ministre des collectivités locales et de l'aménagement du territoire qui m'a en tout cas beaucoup soutenu par rapport à à ça et ba madame dem faju ba donc j'ai am na lu bëri fekkuma fi et moi tax may saluer aussi au passage euh, ñi nga xam ne ñoom comme nañ fi ku mel ni euh, Awa Deme Ndeye Marème Deme moom moo la présidente de du mouvement mais nekkoon nañ sur le terrain di def ay di dem di def parrainage di toppatoo xam nga jeunes au nom de MPC euh, jeunes yi mais comme nous sommes dans un cadre unitaire dans le cadre de la paix

et continuera à, à, accompagner la politique du président Macky Sall, à accompagner la politique du département. Voilà, les des questions fast track. est-ce que tu es waaw donc est-ce que tey puisque yow yaa ngi nekk euh, yaa ngi nekk euh, commune euh, fii di Kër Daouda Sarr. Mhm. nek commune Bambilor. oui Nek waayu Wayou, Wayou, Omar Gueye à côté de toi, Ndiagne Diop mi et Bambilor. c'est quoi c'est un peu paradoxal loolu. waaw xam nga xam pour wax la ne loolu li ko indi eh, paradoxe boobu leer dafa manam man damay dëkk Kër Daouda damay tëb kam une commune dem bokki Bambilor c'est-à-dire loolu ñi doon def découpage bi ils l'ont fait defuñu ko woon parce que population yi moo leen ñoroon defuñu ko parce que dañ bëggoon askan bi gën a jege affaire yi mais dañ ko doon def pour liquider un homme politique. donc yow c'est par rapport au régime précédent. c'est ça ils l'ont fait malheureusement ñoom def nañ ko dem nañ certes mais population yi ñooy subir loolu ñooy souffrir tey donc c'est dans cette optique là que la ñuy demander à ce que et moi je crois que le président de la république Macky Sall d'autant plus que à nañu dinañu pour corriger ces incohérences territoriales là et ce jour-là il a cité même l'exemple de Sangalkam d'accord donc je crois que nous, euh, hmm. en tout cas pour nous euh, des communes en tout cas euh, bu ñu am commune ñun commune mais comme comme commune mais actuellement vos, rapports, vos rapports sont sains. Ah. mais bien sûr parce que Ndiagne on s'est ah, connu parce que Ndiagne gis nañu ko fii souvent da doon xatu ci kanam Omar Gueye. oui ñëpp gis qui yi ñuy mais xam nga ça foulait de source quoi c'est vrai que réglé apparemment souvent. oui ensemble non actuellement. la façade là. non actuellement euh, en tout cas moi ce que je crois. quand hmm. le président Macky Sall a dit lors de la présidentielle que nañu ànd booloo nekk Ben il a appelé Omar Gueye et l'ensemble des maires y compris le maire de Bambilor nous-mêmes, durant la campagne présidentielle, moi-même, j'ai été dans le bureau euh, du comité électoral de la commune de Bangalore, dirigé par euh, mon frère, euh, mon fils, je veux dire. Mais bon, ça n'a pas tenu parce que... pas. non, non, non, non, ça n'a rien. Non, ça c'est après je vous dis, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Mhm. Il y avait le jeune Papso, qui était le, président du comité électoral. Ah, il y avait, aussi, a, un homme un homme sort il y avait, on a besoin de lui. Absolument. Il y avait Moussa Le Diop qui mhm. était là. Mhm. Il y nous, nous, avons fait une seule équipe faire campagne, pour gagner. On a amul ni andon ak andak Omar Gueye ñu fi et puis lolu amatul ay problème ñu andon ak Ndiagne ñu andak Omar Gueye gis nga actuellement dans cette zone là. li nga xamné pré prévaloir mooy que nit ñi donc le puge là bi amoon Mbambilor. non loolu c'est c'est c'est dépassé. franchement ay góor yi Assane di xeex yor ay non loolu c'est dépassé. Lolo, loolu c'est dépassé. ba ñu yebal maître Omar Youm ñu je me rappelle c'est Omar Youm qui avait présidé la cérémonie à Bambilor. mais moi moom peut-être moment yooyu j'étais je n'étais pas. très truc avec eux mais. Euh, loolu romb mais tey la wax mm-hmm. au moment où nous parlons les gens sont en train de travailler la main dans la main. maintenant ce que nous voulons vraiment mm-hmm. moi, que li may mën wax rek lancer ko moy eh, jam si lépp. alors jàmm jooju est-ce que tay buñu ñu ci ay élections locales. Mhm. Euh, lan la da ngay da ngay da ngay talal sa loxo en tant que MPSE da ngay jappelé candidat bi wa Benno Bokk Yaakaar di yëkëti wala lan qu'est-ce qui lan moy say ambition donc euh, vers les local à venir. waaw xam nga. en tant que leader politique xam nga leader politique bo gis am nga ambition. fofu lañu ñu am nga des ambitions kenn ku nek mais ambition yi ngay am da nga ko da nga war a consacré si parti bi nga d'accord parce que boo nekkee un militant discipliné. donc yow xëccoo candidature nek dans un parti. Mhm. bala nga wax ne damay xëccoo li damay def li da ngay ba les instances de ton parti ñu wax ci ñu discuter waxtaan bu dee da nga am posture bëgg posture booy lancé bu boobaa xëy fa wax ne man dama bëgg nek li wala dama bëgg def li mais moi personnellement en ce qui me concerne. Mhm. je n'ai jamais kenn musuma dégg. ci xëccoo ay poste wala quoi que mais lépp lu nga xam ne lu ma war a jot la bu ëgsee bu waree ñëw pour ma war ko jot nak dina ci def fulla ak fayda ju tax ma jot ci d'accord mais yalla nak moy joxe cieur moy mhm. fal kep ku nu fal di wara a ak yow le maire de Bambilor depuis 2014 biñ ko falé maire on l'a toujours accompagné Oumar Gueye. depuis que mon ex... donc doo bousculer on l'a non je moi je fais pas de croque en jambe hein, je fais j'ai ah. rien du tout parce que moi un combat quand je le mène je le mène droit au but comme ça devant mon adversaire ah, parce que c'est comme ça mais pour l'instant le mot de la fin oui le mot de la fin c'est vraiment mooy Gremlin d'abord et souvent je le dis que les grands responsables de war di ñëw di parce que c'est département tous les responsables du département dañu wara à son rayonnement et que mm. radio bi jëm kanam kon ñi que tous les leaders responsables yi nekk fi dañu et moi je crois que né ñom ñëpp nañ même les responsables donc aussi xam nga ñoom ñëpp ñu jaar fi di wax donc ma ngi leen di gërëm. président Macky Sall sax suñu ko mënon jot dañ koy ñu wëy yalo ah Assane Assane ku dugg bi ñuy yalo way ça va na ngeen def ñi ngi sant yalla bu baax. kooku. ça va Mbaye Badiane. Mbaye Badiane ñu ngi lay nuy mbay wa jere jeuf da nga bëggoon wax Abdou Aziz rapidement. wa wa mais acca bismillah may doog a dugg ba dama taal sama radio bi dégg. dëgg la sama grand. Eh. sama collaborateur Abdou Aziz. on ah. courage ñu ngi àndoon depuis réew mi. mu ngi lay dégg waxal ak moom. merci Mbaye maa ngi lay maa ngi lay fay. bu baax dëgg la. donc comme da ngeen doon tëj émission. waaw dañuy tëj moom hmm. dëgg la. dafa ko ñaan rek. Hmm. ñoom ñooñu dëkk ci quartier yi ci xob yi. a toog waxtaan ànd daal jéem a xool. très bien. liy avancé quartier yi. merci surtout la commune de Bambilor ñoom ñëpp ñu nekk ci. absolument parce que leen fal dañ leen yaakaar. dëgg la merci gi du question ñoom ñuy xeexante seen biir. dëgg la pour ñu ànd pour développer ah. dëgg la euh, la commune. absolument donc merci Mbaye que je salue au passage vraiment ah, nit parce que jox nit ñi ñu dem kanam mhm. vraiment tout le département di tous les responsables nek ben rassemblement derrière le, responsable désigné du parti. Pour le moment, en l'occurrence, le ministre de la ah. le, ministre de la Gouvernance territoriale, on comprend. Gueye, <laughs> et président de Benno Bokeyakar, et l'ensemble des responsables, à voilà. Doyen, Omer Sek, les mm. Mm. Matar, euh, Euh, Kulim Dioum. waaw Ablaye Lo les Moulay Gueye. Euh, Assane campagne bi. Daouda Diaw <laughs> campagne bi voilà merci. <laughs> et tous les responsables de Rufisque ñoom Abdou Salam Gueye. tout ça Badara Mamaya ñoom Seydou Diouf. Ah. vraiment ñoom ñëpp. gis nañ seen engagement seen taxawaay ci Tëngéej ministre Samba Sy donc nanu gën a góorgóorlu la jeunesse dañu jox la la seen rôle de Rufisque euh, la COJER ñoom Abdou Aziz <laughs> Konaté Djibi Ciss El ñoom tout le monde ay cadre comme tu dis ñoom Assane Mansour ñëpp ku lim juum ngi leen di gërëm ñëpp di remercier sama sama sama suma famille kontaanoon ci yow tey sama mon épouse que je salue au passage ah. qui <laughs> actuellement est en Italie maa ngi koy gërëm di ko di ko sant Aram Diagne di nuyu suma suma suma xarit yeeg suma mbokk yeeg suma ñëpp daal kenn ku ne maa ngi lay gërëm di la sant di leen encore encore une fois di leen gërëmaat di leen santaat ci invitation bi ci émission bi di wax ne daal lépp luñ fi wax nag lu ci am rek rëkk mm. ñu baal ñu ko te xam ne defar rek moo ñu taxoon jóg waaw ñàkk matu doomu aadama ci lañ ci dugal encore une fois di leen gërëm leen sant wasalaam merci beaucoup Abdou Aziz euh, Seck moo nekkoon suñu euh, gan tey jii ni seen émission jàkkaarloo politique Moussa Pouy moo nekkoon ci waxukaay bi assan Diour ci xarala gi moom mi jiite SPMPS ñu koy gërëm di ko sant yéen itam mbokku déglukat yi rafetlu seen ànd ak rajo Jokko FM dig daje bi dimanche lay doon beneen gan beneen émission jërë ngeen jëf ñu yéen